ñu ngi nii di ba sang ah, ah ci bois sacré bi. waaw. waaw. nga man ma Joolaa bokk maam séeréer Joolaa ñu bokk maam. ku ci def sa morom la boo da koy gis. jël ko. xam nga sañse bi nga sañse woon moom nga jël nii ko. lii nii ban ban ban intérêt la aujourd'hui nga wane ko lii nii ban intérêt la aujourd'hui ñu koy wane. pour waaw <laughs> que man Joolaa laa. Ah, ndax ñoo bokk maam séeréer ak Joolaa ñoo bokk benn maam. Ah. ku ci def sa morom yow Joolaa bari séeréer. torox na séeréer bu rey joola torox na ku def lu bon sa morom torox nga da yàlla da koy wan bi. mais pourquoi nga la nécessité génn da ngay xuppalaate wala ah. ci internet bi. ñu wane bii rek ñu ñu dem a sànni nii. Mm-hmm. am naa fekk naan El ba sama ennemi. Mm-hmm. ba dem di ko di ko sang day waaj a dee. <laughs> moo leen moo leen image bii du fekku feebar. dafa am moo tax bu ñu wanee lépp li ci biir. dañu xam ne dañu ma introduire jox ma benn calebasse ak kan bi ma war a nekk bi ma war a far ëllëg ci réew mi. kan bi ñu ma jox pour ma falu ak calebasse bi war a jox naataangee réew mi xoolal calebasse bi lañ ma jox mooy naataangee. pour nit ñi lekk ba suur ak kan bi ma war a yore diriger réew mi. kon nee la dañ nga falu. mais mu ngi nii. looloo ja dañ la di falu. li ñu ko am bëriwuñ de. nee nañ nga falu. kii ca màggu dëkk lu loolu lañ ma wax ne mu ngi nii. amul amul xoolal euh, calebasse baa ngeen ak kan bi. te gëm nga koy Maître El Hadj. yàllaay fal. Mm-hmm. waaye mën am jot rafet. dëgg la xoolal fii fii fii fi ñu may teeru di ma di ma fecc loo danse bi nga xam ni. bu may falu moom laa war a. mooy rythme bi quoi. xoolal da ma gis may fecc. Ah, ñu ne bi nga war a bu ñu intronisé. Ah, ok intronisé ci ñoom. est-ce ni Joola amul géwél. Mm-hmm. ñoom ñëpp a yem. Mm-hmm. c'est la. amul ñoo gën a démocratique ci monde bi. Mm-hmm. amul classe sociale quoi. xool bay bay bay bay daa mën a fecc nag. ah mel. xoolal roi seen roi baa ngi fecc ak kan bi. ak kàlla baax bi leen war a dundal ëllëg. sa nguur dina neex. ñun ñu may introniser de la Casamance. nguuru El Hadj rek. ak a salsa. waaw ñëppay salsa ñëppay lekk ba suuf sama nguur. waaw dina neex jàmm am kenn du toj kër kenn du taal kër amul motal combat. combat bu sedd guy rek la bay neex. ay ñan. indemniser nañu. ku indemniser non non. indemniser mooy euh, euh, avocat El Hadj Diouf. Uh-huh. Euh, avocat El Hadj moom da fan yi yëpp mu ngi génn ci télé bi di wax uh-huh. Uh-huh. mu jël làmmiñam rek ci Sonko voilà uh-huh. mais na bàyyi doomu jàmbur ji d'accord Sonko rayalu ko doomam rayalu ko kenn na bàyyi doomu jàmbur dëgg la mama dëgg la ah mais nag te wone na ci télé bi ne dafa dem ci ci tuuri ba muy dem ci tuuri waroon na laaj uh, waroon na laaj joolaa yi ci Casamance soo duggee ci tuur lañ lay njëkk wax mooy bul tooñ te bul wax loo xam ne amul te ngay def lu baax yow mun nañ la protéger de sang la protéger la ndax mu ngi toog di wax nit ñi ken duma la ken kenn mënalu ma dara. mais xamul ne nit ñi duñ ko laal mais tour bee kay rek boppam ak famé <laughs> way ñepp am jamm way mais. parce que tour bi day xol kan moy def lu baax ak ku dul def lu baax. Mhm. parce que duñ la sang rek so génnee rek nga japp doomu jambour bi rek toogee ko suba bo suba ngon ngoon guddeeg bëccëg. Mhm. te tour lu mu njëkk bañ. ngay ngay doomu jàmbur di wax lu bon ci moom même même Sonko demalu ko ci tout mhm. mais moom lu muy def tour bay jël wax bi ah hein? dama koy jël ba pare juge ko juge ko ci famille na def très attention parce que moom dafa dugg ci li nga xam ne ëllëg xamul fu muy mujj hein? parce que tour du noonu de doo dem rek ñu sang la ñu ne la pare nga moom piège lañ ko def ba mu demee ca joolaa ya te waxuñu ko li xew. i i i i i diñ ko piégé. waaw parce que fu mu nekk nii na def très attention na génne làmmiñam ci Sonko. te mu xam lu mu bëgg. mu xam lu mu bëgg parce que fu mu nekk dafa takk waa këram takk boppam. moom la ñuy wax waaw waaw su xamulee nag mu laajte tuur kenn du ko duggee noonu kon tuur mun na dellu ci ci moom mun na koo faat moom mi mun na dellu ci moom dellu ci fameem waaw parce que Sonko doomu jàmbur la moom tamit doom ay doomam la yor mais kii kay kii kay parce que doomu jàmbur jooju muy sikkal tout le temps tout tuur du noonu de nga xam lu muy wax ci tuur hmm? même ñun ñi ci juddoo sax dañ koy moytu soo koy dem di wax da ngay xam lu ngay wax. mais mère doo ñu jàppale nag mu noppi mu muuma. ci tuur yi. non dina noppi dina noppi y a des dina ñëw. dina ñëw. dina ñëw te si ñëw nag ci lay regretté di naan su ma xamoon fekk c'est trop tard fekk kenn kenn yóbbu ko fenn ndax moom la muy wax moom la tuur di jëlaat euh, jugé ko ba pare ëlbati ko ci kaw waaw la xamul nag du noonu de nu mu gisee noonu ñu dem sanga ko ko naan ko kenn du laal su soobee yàlla kenn du la laal tuur day jugé tuur day jugé de day jugé day xool li ngay def kon Tour day comme doyen doyen beneen doyen des juges la. ah beneen doyen des juges la de ñun li ci judd ko te dañ ko ragal boo dem rek di wax nii rek nga naan nii wala ngay def lu bon ba pare di delluwaat naan damay def nii damay def nii Tour bi day ëlbatikuwaat na laajte na laajte joolaa yeeg njaago yeeg ñiy dëkk ci kii yi. man jaaki mankaañi papel yi. am na ñoo xam ne seen kër dafa jeex.

mais dina gisal boppam mais yàlla yàlla yàlla bàyyiwul sonko sonko yàlla ko defar ba pare ñëw teg tegal ko nit ñi ban nag doomu jàmbur la nañ ko bàyyi te ñu yàbbi ko ñoom ñëpp nañu yàbbi nañu yàbbi sonko waaw hmm. man jërëjëf maman ah, lépp li ngeen ci mën lépp li ngeen ci mën rek ñun tamit ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di ñaan ngeen def ko ci rek waaw. Ah. d'accord jërëjëf maman jërëjëf merci infiniment ah. merci. Maître El Hadj Diouf am nga problème de ah Maître El Hadj nga ci problème gars yi nee nañ dañ laa piégé Casamance ah Maître El Hadj sa affaire yàqu meɗen aju condamné nga sa bop yo nga yakani wa casa mas di nga dem fofu nonu ñu defal la lo xamanteni ni da ngay yak Ousmane Sonko yow est ce que maître El Hadj Diouf yow da ngay xalat li ngay ne da nga dem tour mas war nga xamne dem nga sacrifier sa bop parce que ñepp xamnañ la Sénégal ñoo dinañ la defal lo xamanteni da fay protéger te ngay ton sen dom sa mais El Hadj Diouf da nga dof ci que tu es fou tu es fou mais tu vas voir man bo mumon ni rek pendant un mois ou deux mois si gémmiñ bañ a tijji comme ça nit ñi am jàmm xool